pàcc màggal gi nag ci ndigalu seex Mouhamadou Mountakha wàcc ba ci seex Mouhamadoul Basir mi nga xam ne moo jiitu comité de organisation Grand Magal de Touba ci la ñu joxe ndigal nag ñu lëkkaloo ak e moo bi nga xam ne sëñ Watara mii moo ko jiite euh, ñu lëkkaloo ci ci xale yi nga xam ne dañuy réer ndax ku tudd màggal da tudd mbooloo mbooloo nag boo ko tuddee kenn ku ne buy ñëw bu sañoon njaboot gi yëpp lay indaale loolu nag dana tax léeg-léeg nga indi bi bu te bu réeree it day indi jafe-jafe ndax man nga xëy daanaka màggal gépp ngay wër te doo xam foo koy wëre moo tax nag ñu sàkk ay barab ci eh, ndigalul comité organisation bi ñu lëkkaloo ceeg AMO e ak Croix-Rouge nga xam ne AMO e yaa ngi leen gis yi ñoo nekk ci buntu kër Sëñ Fallou Watara mii moo ko moo jiite département bu Mbacké ñu di am ci taxawaay bu rafet niki noonu it Ah, wàllu yeete it boo demee ba buntu armée ñoom it ña nga fa santar eqara ña nga pencum jenne ña nga it kër ñang ah, loolu nag kon di liggéey ba am solo boo xam ne ku tudd màggal tudd sëñ Tuubaa da nga tudd gone ndax sëñ bi dafa fonkoon xale lool ndax dafa xamoon yitte ji nga xam ne xale am na ko ci société bi ndax lépp lu baax loo yaakaar wala lépp loo xam ne da nga ci yaakaar ëllëg tonowu yaakaar naa xale moo ciy jiitu kon boo defaree saw sa say gone rek boo ëllëgee saw askan mën naa defaru moo taxoon sëriñ bi xam gu mu xam importance su gone moo tax taalif na ci sax ñaari téere muy tasawudu sixaar nga xam ne yóbbalu yow yi la ko tudde ak tasawudu subaan boo xam ne yóbbalu waxambaane yi la